salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ku si nekk si turam ak santam di kontaan trop si yàlla euh, fekkee bu ma boolee si xew bi nga xamante ni Macoumba Diouf moo ko xewle ak suñu mbokk séeréer leen ma kontaan trop teew si man yëf yi Macoumba daaw ma fa teew comme kuy toog si baa wala kuy toog fee invité non man dama am xam-xam boo xamante ni moom laa xam mooy affaire garde corps si sécurité si laay gën di veillé su ma ñëwee si ay affaire am yu mu xewle si sécurité am laay gën a veillé wala ma xool si kaaraangeem wala si organisation bi mais du ma bëgg a nekk sax invité parce que moom su ma ndijaay la su ma mag la su ma xarit la nit ku ma bëgg si biir xolam la te yëg naa ko te xam naa loolu waaw te man du ma dof xam naa nit bu nekk si àdduna sama koñ Osman fii façon nit nekk nga fa dëkk mais du ma def kër kenn kër ma Kumba Biray ñëw ak Kéba Kanté mi fi jógee léegi sama dëkk amoon na ministre ba yàlla dindi ministre boobu mu xam njëriñul kuy liggéey si affaire politique yàlla xam na ko ak yonente bi mais ma Kumba Diouf mii yàlla rek laa koy bàyyeel ak yonente bi ak li nga xam ne mooy feeñ sama yaram bi ba tax ma bàyyi bëre ah loolu laa koy bàyyeel bëre mënuma kaa defaat nekkul de damaa daanu rek bàyyi bëri dafa am ay loo xamante ni day feeñ suma yaram bi te ay jullit lañ suñuy julli loolu la ñuy kaabar di ko jullee feeñul sama sëriñ feeñul sama yaay feeñul sama papa si man nii la feeñ te maa koy gis tout xale bu ndaw laa dama préparé suma lépp pour bëri pour nekk roi des arènes ah. préparé woon pour bëri dix combats victoire benn défaite bàyyi bëri non dama préparé woon bëri ba pare lem affaire bi yóbbu ko sama Louis Senghor moom wax dëgg yàlla nit ku yaatu la gis nañ ay kilifa yu nekk seen soxna yi léeg-léeg dañuy siis sax nit ñi mais moom ku ñibbi te reeroo sax day mere dalay mere you sant tamit bu baax grand Waly Diouf chaque instant lu ma tardé loo xam ne yëguma ko sax moom ay gaawantu woo ala foo nekk ni ay sa waay day def lii tey ma ne ko ay eh, xaaral taal moto bi gaaw maa ngi ñëw léegi di ñëw fekkee yaa ngi dégg maa ngi sant yàlla bu baax di la ñaanal bu baax Makumba ku taxaw fii rek di wax baaxam côté bi rek doo xam mais man mii di ànd ak moom si àll bi dëkkax dëkkax dëkkax dëkk xam li muy daj li muy sonn te du tën xam lu dara téléphone bi bu sonee mu wuyu wallahi yàlla dina la fay sa xol yal na la yàlla may fan gudd rek ak wér gi yaram mbokk yëpp fekke ko di nuyu suma papa Simon mënumaa lim ñi fi nekk ñëpp mais maa ngi sant ministre di sant tonton Ndiaye tonton Cheikh Ndiaye ak sama tonton bi ma dendeel nii maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp leen ñaanal ku si nekk li nga yéene ma kumba baax yal na ko yàlla dogal waaw man mënuma wax mais kontaan naa si fekkee fii. jërëjëf. ko jàll kon loolu mënul ñàkk quoi ayca léegi le grand champion Eumeu Sène di xaritu fekk na lépp lu ma kumba xewle def ciy teew moo xam Lat Mbengue la moo xam dakaar la ak fu mu mënti doon ci réew mi saa yi docteur ma kumba xewle moom dina ñëw teew pour feddali kóllëre digganteem ak moom wane également que ne Makumba nitam la nitam la ku koy jàppale ci biir ak ci biti ba tax na mënu ko tànkamlu mi ngi ci contrat mi ngi ci komba mais dafa bàyyi lépp ñëw teew ci bés bi ndax sa jëmm ji asalaamaaleykum maa ngi leen di sant bu baax ginnaaw bu ñuy sant yàlla di julli si yonent bi di gërëm suñuy waajur di ñaanal senegal yàlla fi jàmm yàgg ñu taaw féete ginnaaw ñu génn te bañ fa duggati ñu nekk ci hôpital yàlla fukk seen bopp waaye daw li yaa yërëm leen taxal leen àjjee fii daw si di ñaanal Sénégal yàlla fi jàmm yàgg di nuyu mbooloo mu fi teew yëpp di njëkkee ci suma kilifa docteur Macoumba ku ne xam ne ni man maay moom moom mooy man <laughs> ndef lañ moom drapeau bi nañ ma xaar bu baax a baax a baax a baax mm-hmm. waaw sama combat Balla Gaye bàkk mooy bàkku foofu laa koy njëkkee di baax bu bees na ma waa Fatick moom xaar waaw Fatick moom nañ ma xaar xam ne ci délégation bu laay bokk ba pare am ak mu tuddee docteur Macoumba incha allah dañ ko ci baax bu ñaari di nuyu suñu ministre Mandick di nuyu Cheikh Ndiaye di nuyu tamit aussi Ngagne Diagne di suñu kilifa baax di nuyu Malick Niang bu baax a baax. na ko gars yi namm nañ la nag namm nañ la ñëwoon. daa war a yi jël ah. waaw waaw nekkul dafa bëgg bàyyi làmb mais dama gis ni gars yi ñoo ko ragal. waaw mais nag na ko gars yi jël. parce que manqué nañu te xam nañu champion lañ. est-ce que boo paree doo ko may chance. non amul benn problème champion mooy bëgg champion. Malick Niang ñi ngi njëkk a dajee su ma juumul euh, euh, Géro xawma ma Géro. waa exactement merci dañ joxante loxo rek ma ne ko waa mais yow boo maa soo gis ma ne ko waa mais yow ba digg nga nekk moo mënoo du wëmbar di ma nax <laughs> mais moo ko xoolee macha allah xam naa ni xam nga champion la daal te bii tamit affaire yi woon na ci fulla ak fayda jàmbaar lamb ji am nga ci place na la gars yi jël nga bëri bul mus a dem parce que ñun dañ la namm quoi dañ la namm ci biir géew gi yàlla nga ne ñaan nga ñëw ak jàmm di nuyu nag kilifa yi fi toog yëpp man nag wax mu ne ma ko noonu. Mhm. mais tey moom xam naa way jëng wax si moom. mu ngi lay nuyu bu baax Lamine Samba maa ngi lay nuyu di la nuyu Malick. Mhm. xam nga di nuyu dërëm. xam nga ku lim jum daal maa ngi nuyu ñu fi toog ñëpp. waaw di leen wax nii nag xam nga. Louis nag moom xam nga <laughs> jigéen bu mën góor la. la ñuy wax rek <laughs> jàmbaar joo gis rek xam nga. waa jigéen ñi ci ginnaawam xam nga di ko jàppale bu baax a baax. waaw parce que yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ko. lam mooy baaxaayu góor mun a jabaar. ñu la mooy mbonaayu góor mun a jabar loo baax baax sa jabar bu du feeñ waaye loo bon bon bu sa jabar baaxee tamit aussi kenn du ko gis waaw kon Louis ñu ngi lay xam ñaanal sa na la ci yàlla jàpp lu baax xam nga doom si juddu yëpp yàlla ñu am barke waaw di nuyu ñëpp nag sant su ma juumee ñu xam ne yàlla man la maay maamatul lu ci baax ñu xam ne yàlla suñu borom la jaa ngeen jëf géew la man mais mënul micro <laughs> mais wax ji macha allah